asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di nuyu fépp fu ci waay mën a nekk rek xam nga di leen béggee bu baax a baax a baax di leen wax ne moom encore une fois rek nañ koy waxee lañ ko daan waxee rek amuñu seen fay tey nag maa ngi biir Grand Dakar Grand Dakar nag buñ ko waxee bëri na ay champion yu fi dëkk ñoo xam ne ay doomu Grand Dakar lañu di ay nit yoo xam ne Euh, yaakaar naa ne am na lu ñu def ci lam ñu seet si koo xam ne tey dafa boole ñaari dëkk ndax ku ne xam ne ne doomu Bawol la waaye tamit doomu Grand Dakar la muy Modou Awatine nekk mbër moo xam ne ne yaakaar naa ñi nga xam ne ay amateur u làmb lañu la ñu xam làmb ku ne xam na ko ci jaar-jaaram ci làmb lim ci jot def fi mu ci jaar ba tey mu ngi nekk ci macha allah ñu fas yéene nag seq ak moom waxtaan hmm? euh, Modou Awa maa ngi lay nuyu di la genre le grand champion. waaw Babacar maa ngi lay gërëm di la sant yaa ngi àndal. di gërëm waa Grand Dakar ñëpp di gërëm waa Colobane gërëm waa Port waa Médina waa Fass waa Gueule Tapée waa Jëppal waa Asalem waa Ouest Foire gërëm Sénégal gépp daal waaw maa ngi gërëm ñëpp di rafetlu vraiment seet si bii nga ma seet si vraiment ak sa équipe bi kontaan naa si trop jërëjëf Modou Awa bu ñu ko waxee yaakaar naa ne faaw ñu lim nga comme ni nga ko limee si Dakar nga nekk koo xam ne secteur yooyu yëpp fu ci fa am wàll moo tax nga limbe leen noonu waa doomu bawal laa doomu bawal bu baaxal bu baax laa may nuyu sama mbokk bawal bawal yëpp di leen ñaanal jàmm di ñaanal Sénégal yëpp jàmm vraiment loolu laay ñaan daal. mu doon fan la dëkk si bawal. maa ngi dëkk seew Sewtin ah. waaw. waaw après Touba Toul da jaar Ndorong après jaar Réew Maaw bu la neexee jaar Réew Maaw bu la neexee jaar Réfan mhm. après nga ñëw Sewtin. Modou Awa bu ma ñëwaatee tey ci làmb euh, wala sax balaa may dugg ci li la dugal ci làmb yaakaar naa ku ne xam na ne fan yi dégg nga génn àddina ak baay Balla Ndour nekkoon ko xam ne nii formé na ay mbër mën nañ ci lim ñoom Balla Gaye ñoom les deux ñoom Elton ak ñeneen xale bi ci des mooy Pape Bouba Diop génn àddina bu yàggul te te lépp ci benn euh, kër gi la rek parce que ñëpp ay sportif lañu ñaari mbir yooyu fi xew nii loo ciy wax. waaw damay njëkkee ci Père Balla Père ñëpp xam na royukaay la si làmb wax dëgg si yàlla kenn mësu ko dégg ci lu ñàkk fayda da daan jël mbëri di leen former ba génn ci ay champion yaakaar naa ne écurie am nekkul écurie bi fi mag mais nekk na écurie bi fi gën a ràññeeku parce que na ay champion ñu koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jóge njaboot gi fi yàlla bàyyi ñu yàlla teg ci seen loxo ba nu am bañ a am dara lu leen metti Pape Bouba it wax dëgg yàlla sigil nañu guddi sigil nañu bëccëg ñu koy ñaanal yàlla it fa mu jëm gënal ko fi mu jóge njaboot gi it yàlla teg ci seen loxo ñu koy jaale Sénégal gi yëpp ak ay mbokkam yëpp vraiment macha allah amin yàlla na yàlla nangu ñaan yi Modou Awa euh, ci làmb su ma ñëwee ci làmb Modou Awa lu ko lam lu ko dugal ci bëre. waaw man li ma dugal si bëre man sama maam da daan bëre saa patutin ñu koy wax góoru ndaag da daan bëre ci li nu ma nettali après sama papa maam bi mu bëree ba pare après sama papa it ñëw jël ko ci moom jamono comme ni ndakaaru xewe nii ñoom dañ daan topp reso rek dëkkoo dëkk ñuy fanaan fu nu fanaan di bëre ba bët set ñu continuer benn demaat beneen village noonu lañ ko daan def dañ daan am ay weeri weeri weer ci àll bi di tourner rek di dem léegi après bi sam papa ñëwee it am pour gis papaam doon def loolu sam papa it jël relève bi si moom après di kii mais man bi may ñëw Ndakaaru wax dëgg fa yàlla jàng métier moo ma indi woon. métier lan. Euh, téer laa doon def ba fa dëgg yàlla lu ma ci bëgg def mën naa ko si def téer waaw kon ba fi mu nekk nii mu ngi ci bopp bi ba fi mu toll nii lu ma ci bëgg def mën naa ko si def waaw mais bi nga ñëwee di jàng téer après lan moo la inspiré ba nga topp di donc ko noo ko noo ko boole woon ak làmb ji war a jàng ci war di dem di bëri jéeg ak ay affaire yooyu xawoon na compliqué trop mais wax dëgg fa yàlla sam patron bi muy sëñ Aliou Diouf wax dëgg fa yàlla patron la boo xamante ni comprendre na nit ci li ko li mu bëgg parce que sama rakk papa muy Ba Abutine bi may jàng métier bi après man dama amoon ay mag am ay rak mais xama nga làmb dañuy xool kan moo ëpp fit wala kan moo gën a sadik mais ñeneen ñi bi mu leen xoolee ñu xam ne ñoom am na lu des ci sa dëgg gi wala am na lu des ci sañ-sañ gi après bi mu xoolee mu ne Modou comme man yàlla dogal na bi ma nekkee dëkk ba man dama doon sàmm ci àll bi rek laay nekk mm. man maa leen di ëpp sañ-sañ ci yenn yi quoi mm. léegi naa mu ne xool naa leen mais Modou daal moom moom laa opté pour moom mu dugg si làmb ji waaw après laa doon boolee ñaw bi mm-hmm. su 5 jotee ma dem géej fekk fa écurie Bawal di entraîné ak ñoom Fallou Ngom it Mbaye Ndewaanin mm. bi ma demee nag ba gën a ràññeeku après ci la ma jël yóbbu ma écurie Fass ah kooku moo la yóbbu Fass. waaw moo ma yóbbu Fass ba Abutine. Fass ñaatat nga fa def. waaw Fass boo xoolee yàgg naa fa de parce que li may bëre mbapat ba li may bëre arène yëpp maa ngi foofu. waaw mais bi fi Salloo di jóge après boobu la ñu foofu après ñëwoon force tranquille bi nga nekkee Fass yan ñoo fa dajal ñoo fa bokkal génération. waaw bi ma bokkee Fass boobu maa ngi fa fekkoon ay Cheikh Guèyeen ay ñoom laabu Fass ak ñoom parce que boobu ay euh, Jili ñoo ñoo nekkoon espoir lamb ji nga xamante ni dañ ko téyewoon ci seen loxo waaw bi ma ñëwee après ma nekk seen poulet topp ci seen ginnaaw mais dem naa dem ba ma daan la ñoom laa mënatuñ la woon daan waaw ñooñu ba ma fay dem la ñu que chaque dimanche wala chaque samedi dimanche mais naa liggéey liggéey liggéey ba nga xamante nii dem naa ba mënatuñ ma daan ma liggéey ba dem ba xamante nii ñoom nangootuñ sax bëri ak moom parce que garab waaw garab ci kaw lay fekkante uh-huh. uh, ku mel ni Gris Bordeaux ak ay Balla Diouf ak ñooñu uh, ñooñu yàlla jiitu Fass waa ñooñu Gris boo xoolee Gris ak Balla Diouf ak ñooñu parce que boo xoolee ñun ñoo bokk même génération bu nu fa ñawee parce que Gris yàgg nañ fa man ak moom ñuy ñëw entraînement di ñëw entraînement di ñëw entrement chaque combat duñu jox bilisson chaque combat duñu jox bilisson mais Père Mbaye Gueye daf nu yàgg uh, teg bët xam ne ñun ñii ñun bu nu góorgóor rek dinañ doon dara si làmb ba benn combat après ñu ne ñun ñooy ñëw ñooy njëkk entraînement chaque jour bu ñëwee duna jox bi ba benn jour après benn combat Tapha Tine am jàppatuma sax moo kan la jour bi nu waxee ne man a giri bu nu amul bi leçon dañuy démissionné boobu noonu la Père Mbaye Gueye mel ni a dem si saak bi génn na la <laughs> la ñu jox bilisson ñu daf nu daf nu may àdduna ak si biir ñu kontaan nag ci la ñu a dëggale suñu bopp xam ne ñun nag ñu ngi nuy soog a xam ne ñun boole nañu si équipe bi ndekete loolu la ñu bëggaloon après ci la ñu nekk nag après xam nga ñoo giri ñuy dem mbapat di dem yëpp affaire yooyu di nekk foofu noonu di kii noonu. mbapat bëri nga ko de. waaw bëri mbapat moom li ma si def. Hmm. li ma ci def moom mbër buy hmm. ko ci. mbapat foo ko doon defee. mbapat man fu mbapat mbapatu Serigne Ndiaye mbapatu Boy Bambara mbapatu Père Birahim mbapatu Mbaye Guèye mbapatu Xaadim euh, Ndiaye mbapatu Maxime Bergan mbapat yooyu yëpp dama ko téye woon. Hmm. yëpp man li ñuy wax ne bête noire dafa am si làmb man aw ko bët ngoon jot ma takkaat sama ngem demaat bërewaat fële. mbër yi fi ne tey di ràññee nii ñoo ci ñoo ci dajal ci mbapat ak ñi nga bool situation. waa ci ñi fi nekk di ràññee nii xam nga man jamono yi may bëre mbappat jamono yooyu ay Balla Gaye ay ñoom Modou Lo ay kii ñooñu parce que ñoom boo xoolee ñoom lu ko kii lu ko googunu parce que jamono yooyu ay Paate Balla ñoo fi nekkoon ay ñoom Boy Sey ay ñoom Sos ay ñoom euh, Issa Pouyin ay ñoom Baye Mandione ay ñoom Khadim Ndiaye numéro 2 Kosor Gom ñoom ñoo fi nekkoon voilà ñooñu laa bokkoon génération ñu nekk fi. ñooñu jaar ngeen taal yaa ak ñoom ci mbapat yi. ñëpp ñooñu ñëpp ku ci waxte yàlla tax hmm. jaar am naa fu ma jaar ak yow hmm. ci mbapat du benn yoon du ñaari yoon nag xam nga rëg-rëg sax fi yi ne naan moo téye mbapat bi hmm. am na bête noire parce que jéen kayre xam nga jéen kay waa bébé jéen am na fu muy jaar ak moom mais man loolu laa ci amul kon gars yi bi nu demee ba nga xamante nii tënaa ba xamatu nu ñuy def Tyson Tyson kii euh, ndemti yàlla si ndeysaan Tyson senior la ñu dem jëli ko ndeysaan bi nu ñëwee ma ngi njool ci kaw sut ca ñoom mais combat bu gaaw sax laa ko daan mbappatu Maxime Bergan ay dun xaafi na gaa yooyu yëpp si ñoo ñooñu ñëpp wóor na yàlla ci benn ama seen daje ngeen ma ko ama seen non non ama seen ama seen ak Mbaye Diouf ak ñoom Oussa Sowin ñoom suñuy grand la nu woon ñun dañ daan teel a dem bëre li ñuy bëre ñoom bu ñu ñëwaawoon rek ñun dañuy lemaat suñu mbuus ñëw teel leen yére yeeg dàll yi ñoom ñu continuer bëre waaw di seetaan waaw ñoom kon daal mbapat Modou Awa bu ñu ko déggee def na ci lu am solo Tyson si ñooñu ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana léegi euh, kañ nga jëkk a dugg ci géew bëre arène waaw xam nag man moom euh, année yi du ko jàpp quoi parce que man wax dëgg yàlla dongo daara la français euh, a mais combat bu metti la ñuy combat moom ñun dañuy wax ay combat yu métteeg affaire yooyu sama combat ak Baye Mandione la gars yi gën a choisir nag mais man sama combat ak Sidi Babou boobu noonu hmm. laa gën a sama coono ak sama fatigué ci kombaa ci combat waaw. ok na am na solo ataaya ji ah, ñu lu ci baa dañuy naan continuer ataaya Grand Dakar neex na de xulle hmm? macha allah li am na solo ah booy man nañu ataaya de waaw. hélas am waa lii de xéewal la waaw yàqu ci dara macha allah ñuy nuyu borom ataaya bi kon dégg ngeen Modou Awa li mu wax rek jëmale ko ci xale yi seen li mu jàpp ne seen bëree des na mais xale yi parce que yow bu ma la gisee nii ak nii nga mel macha allah maanaam ku la gisoon ni mu la gisee la lay gisewaat xale yi maanaam entraînement bi ñuy entraîné moo baaxul moo tax seen bëree yéex wala dafa am lu ñuy jël wala poids yi ñuy yor dañ ko moomul wala xam nga xale yi man su may nit jiitoo si dara damay jël ci moom exemple bu fekkee ne exemple bu baax la man sama bët fi ma ko tegoon mooy Tyson Tafa Gueye bëri nañ ba bàyyi bëre amuñu benn problème ci seen wér-gu-yaram parce que voilà dañ doon jël naturel di entraîner normal pas ñuy jël yenn affaire yi wala sinon ñuy jël yenn poids yi te loolu baaxul ci ñi ma ko war a wax daal sama rak yi nga xamante ni ñoo nekk ci sama ginnaaw gi képp ku ko ciy jël wala ku ko ci bëgg a def loolu amalu benn njëriñ day yàq sa carrière day yàq sa bëre parce que bëre ba pare li ngi cee am nga dem fajoo ji ko wala sa carrière sax jaar ca yàqu loolu amul benn njëriñ géej gi bi loolu mooy affaire bi mais jël ay ngandeek boo waxee ñu ne promoteurs yi poids la ñuy fay mais poids la ñuy fay boo xamante nii mën a bëre cinq ans wala dix ans sa carrière yàqu wala ngay taxaw di lewaatoo jëmale suba loolu amul benn njariñ waaw ñun maa ngi nii tey ba ma ci nekkee ba léegi nii man yenn saa yi damay tax ni sax mu ne ma yow yaa ma daaw ma ne waaw mu ne ma mais grand man dama foog ne ay ngandu pata yooyu ngay kii wala sa yaram bi nii wala sa mu gàññe ma chaque jour dama koy def li nga xamante nii loolu moo ci a nekk muy sport sportif warul mën a toog wala muy dox ñu ne kee lan la nit ku ne la nga nekk gëm ko da ko war a wane nekk ca chaque jour ba ku ci ñëw fekk la ca ku dem bàyyi la ca. yan poids yu rëy yi noonu da leen di wax ñu bako bu dee daa am lu ñuy jël wala yu mel noonu. amalu leen njëriñ loraange rek la leen di indil nanu wàññi seen poids yi yore seen poids normal yow da xool samedi wala dimanche sax boo ko entraîné wul boo demee da sentir ne jël nga poids da sonn pour nga xëccu. boo waaw loolu ñuy jël daal nañ ko bàyyi baaxul quoi daf leen di handicapé. am na solo kon loolu defe naa ne ay wax la yoo xam ne nii ah mbër yu ndaw yi dinañ ko dégg wala mbër yëpp sax parce que tamit ki wax du n'importe quelle personne ci limee parce que xam na ci dara parce que da cee jaar nekk ci ba tey macha allah muy mu daawatin mais léegi damay ñëw ak yow defe naa ne combat moom fi mu nekk nii soxla nga ko moo xam mm, wala ñu ngi lay démarrer wala. waaw gars yi moom wax dëgg yàlla corona bi nag moom wax dëgg fa yàlla moom la Sénégal adduna bi yëpp ñaan corona bi wax dëgg yàlla. yàlla suñu borom jëlal nu ko fi ñu mën a delluwaat ci suñuy activité mais wax dëgg fa yàlla gars yi promoteurs yi bëgg nañu mbër yi bëgg nañu àdduna bëgg nañ Sénégal bëgg nañ mais corona bi moo xaw a téye affaire yëpp waaw mais wax dëgg fa yàlla moom mbër bu ko wax ak bu ko waxul bëgg nga combat bëgg nga combat waaw yow sa xel ci ku mu ne sama com sama combat Baye Ma Ndione sama combat ak Leuz 2 ah sama combat ak mbër yi fi nekk yëpp tout le monde Baye bëggati ngeen a samp jaag yéen ñaar waaye pourquoi pourquoi du nu bëri jaaroon la de sif sif kay Ah. sif sifaat moom yàqul cere. yàqul cere yàqul cere. waaw su ci ku suuragul. combat boobu sénégalais ñoo ko soxla parce que li ma koy laaj dafa bëri. li ma koy laaj dafa bëri te loolu day dundal làmb day doxal làmb parce que combat boo xamante nii def na ay ati ati at ba léegi nii gars day wax biis bi biis bi kañ la biis bi kañ la man sama gars nekk ci kaw heure bu nu ma woowee ñu ne ma sa combat ak Baye Mandione combat boo bëreeti boobu moo nu ko gënal. waaw Euh, wax nan ma ko waxati ma ko mais wax dëgg yàlla affaire corona bi moom moo xaw taxawal affaire yi parce que corona bi moo tax ba affaire yu bëri kaay mënatuñ ci avancer. les it am pànk la de xeex kat la de. waaw mais noonu laa bëgg man dama bëgg mbër boo xamante nii ah dafa bëri xadar nekk attaqué ah jonge ci li muy def man saaru mbër yooyu damay am envie pour bëri. doo doo tiit ci moom bu ñu la ne sa combat ak moom. lees wax dëgg fa yàlla gëj na ci làmb ji na compétir. mais samp yoo la ci waru làmb parce que mosuma ko gis muy bëri di arrière mosuma ko gis muy bëri di tirise. yaa ko compétition. teg loolu. ah nekk ci làmb ji xanaa. ma gëj ko gis mu bëre. nekk si yeneen man maa ngi si làmb ji guddi ak bëccëg di compétir. yow kañ nga mujj a bëre. man euh, kii laa mujj a bëre euh, booy Grand Yoff bi euh, kii nu mu tuddati sax ay booy damay fàttali Brise de Mer. Brise de Mer a bëre Brise de Mer waaw. ci une laa ko daan dem sama yoon. lees xalaat nga mën nga koo daan ci une déggoo li ma la wax nee naa la lees bu nu bëree deux minutes na arbitre yëkkati loxoom jox ko victoire. Ah, lu tax nga wax loolu. su fekkee dawul. waaw deux minutes bu nu ko bëree man instant nii li may santé ci sama yaram ak li ñuy def ci sama yaram hmm. mbër bu ma ci jàkkaaroo lam ji ba lam ji daj mbër bu ma si jàkkaarlool premier round ñu génn ko bu nu yóbboo samay supporters xam ne perte naa combat bi. est wala li ngay wax daane ci yow fi mu ne ci dooleeg forme. non xam nga par exemple lamb dafa nekk loo xamante nii comme booy wax yenn wax yi ñun dafa bëgg combat wala dafa kii mais wax dëgg fa yàlla man moom maa sant yàlla namu ma dara bëréewu ma mais namu ma dara am naa ñoo xamante ñu ngi may jàppale te maa ngi liggéey wax dëgg yàlla di sant yàlla mais bëre dama ko bëggal sama bopp bu ma sañoon chaque jour may bëre waaw ay combat taxaw na am na ci boo xam ne ku ne xam na ne kecca kenn ka moom sa mbokk la yéen a bokk bawal muy tafaatin boobu laay njëkki digganteem ak Boy Niang waa digganteem ak Boy Niang combat bu neex la te fi nu war a bëree foofu la nu bëree gis nga làmb boo ci nekkee wane sa fula wane sa fayda képp ku la yàlla booleel mu nekk mbër koom yow da war a bëreek moom li ci nekk ay problème bi mooy combat boo demee ba engagement pour jël ko dangay jël say say say say say kii say matukaay am sa fula am sa fayda ne combat bi maa ko jël sama bopp fula ak fayda moo tax ma gagné ko ak liggéey. kon loolu su ma la déggee jooju wax ku ko moom. ñoom ñaar ñëpp ñoo ko moom parce que combat bi ñoom ñaar ñëpp la am ñaar. ni mu nekkee danger ci ñoom ñaar. ni mu nekkee danger ci ñoom ñaar Tapha Tapha Tine am na fu mu jóge te am na fu mu bëgg a demaat. booy ñaa am na si lu mu jóge am na fu mu bëgg demaat parce que moom Lac de Guiers tey bu amoon li mu bëggoon daloon ñëw daan Lac de dem dem yoonam kon ñaanul ñaanul bëggul euh, ñëwaat ci Tapha Tine ci amaat gàllankoor. Tapha Tine itam ku bëreeg Bombardier bëreeg Tapha bëreeg euh, Balla Gaye yaakaar naa ne ci loo boobu nga bokk te ba léegi nii jógu ci. li koy yóbbuwaat nag foofu noonu ci loobu pour mu mën a dugaat ci cercle boobu mooy que ne booy yi ñu koy tegal ci kanamam mu ñëw frappé leen jàll demaat jël place am. frappé booy ñaar jàll yombul. waa sant ba ci moom rek mooy mu liggéey gëm gëm gëm li muy kii parce que yaakaar naa ne ku bëreeg euh, balagay Gaye bëreeg Bombardier yaakaar naa ne ñu tegal la booy ñaar boo liggéeyee yaakaar naa ne combat boobu noonu war nga ci mën a génn waaw. Euh, defet ci ku mu gën a bon ci ñoom ñaar. combat bi ci ñoom ñaar ñëpp la defet baaxut ci ñoom. parce que bu dee ni combat comme bu cee ne ci combat kii Boy Niang la Boy ba bu amoon li ko gënal day daan Tapha pour àgg fi mu bëgg a parce que euh, chaque saison ñu ne yaa Balla Gaye chaque saison ñu ne yaag Balla Gaye VIP yooyu bu ci daanoon kenn rek mook Balla far fos dañuy bëre te combat boobu Sénégal yëpp ko soxla Tapha Tine itam dem na ba bëre woon ak Bombardier bëreek Balla Gaye Balde moom moo ko daanoon après mu xaw a euh, wàcc léegi jëloon na Yékini Junior après wane ci fulaam wane ci fayga bawol gépp ànd ak moom jàppale ko mu ñëw jëlaat booy ñaa na bawol gépp ñëwaat tourné waat jàppale ko doomu bawol la doonul doomu France doonul doomu Espagne doonul doomu feneen doomu bawol la ndam li ñun ñëpp ñoo koy bokk na gaa yi bàyyi complexe bi wane fi nu far wane fi nu bokk ñu jàppale ko seen doom la seen xarit la seen jarbaat la ñun ñëpp ñu jàppale ko ñaanal ko yàlla sunu borom may ko jàmm ci combat bi kon yow su ma la déggee ngi dugal ci sa loxo yàgg na tafaa Tafa sama sama xarit la sama rakk la sama lépp la sama doom baay la aussi xam nga tineen yi moom ñëpp ay doom la lañu ay xarit lañu li ñuy gisee bëri na li ñuy waxtaan bëri na hmm. waaw mais wax dëgg yàlla maa ngi ko ñaanal jàmm mu préparé combat bi ci jàmm daan ñun ñëpp ñu bokk ak ndam li Bawal ak Sénégal yëpp. combat bi kon xam nga li ko li li mën a daan booy Niang waaw ñun moom dañuy wàkkeerul ci yàlla suñu borom rek parce que ci côté bëre laa wax waaw ci côté bëre mooy xam nga làmb moo waxul dëgg rek mais xam nga tafaatin bu demee ba di ko takkale di ko tegal booy ñaa di ko takkaleeg booy ñaa làmb moo doy waar rek mais tafaatin tey bu ah, yàlla morom kon ak ab kon wax dëgg yàlla waxu booy ñaa duñ ko wax booy ñaa daal liggéey nag Modou Awa ñun moom wax dëgg fa yàlla li nuy ñaan yàlla ci tafaa mooy que ne lii ñu ko tegal ci kanamam mu daan ko jël roi de sarène comme ñi nga xamante nii ñoom la nekkandool ci làmb ji roi des arènes nga parcelle. waaw ma ngi parcelle mais dañuy ñaan yàlla ah ñu jëlee ko ci Modou rek wala ñu jëlee ko ci keneen rek loolu la ñuy ñaan yàlla. kon daal su ma la déggee da ngeen bëgg jéggi Boy Niang pour yéen dem ca Modou jëli moom ñaanuñu yàlla ah mbëri bawal yi bëre ba bàyyi bëre te roi des arènes bi duggul bawal. Modou Modou Lo moom est ce que ñeexum ñebe la wax na ko kere ne du ma ñeexam ñebe de. non Modou est Ah, pourquoi mënul tafatin bu amee ku muy moytu ci làmb ji ku mu mënul ci làmb ci moom dara tafatin bu yeboo tekki ngembam kenn ëpp ko ci kaar masala kenn dàq ko ci bëre kenn gënu ko ci ñime hmm. kon tey lu gaayam moroomam yi di am ci làmb ji bu ko ci amul yàlla suñu borom moo ne jotagul rek mais du ragalam du ñàkk bëreem du ñàkk entraînement am kon benn mbër dàqu ko bëre tafatin pour ko ci bëre benn mbër ëpp ko ci fit sens tey am ci làmb nag ak tolof tolof mais ma ngi sant yàlla bu baax mook booy ñaa ko dàq bëre mook booy ñaa moo dàq bëre hmm. waaw moo dàq bëri fuuf. kon bu ñu jaxasoo doo ci tiit. combat bi côté bu mu man demee aw ma ci lu ma ciy tiit aw ma ci lu ma ciy ragal hmm. waaw. Bombardier Balla Gaye. Bombardier Balla Gaye combat bu neex la aussi. combat bu neex la mais danger bi ci ci Balla Gaye la ëppee. Balla ci danger. moo nekk si danger. mu nekk si danger. Euh, dañ ko daan muy jël revanche mbër bu la daanee ngay jël revanche danger bi yëpp ci yow la ëppee. Hmm. parce que boo xoolee combat am ak Issa bi ko Issa Pouye daanee. dafa ñëw ne combat bi sama combat la maa ko jëlee sama bopp ñëw wone fu la wane fayda daan dem yoonam combat bi comme noonu la moom la war a noonu la war a def fa Bombardier rek dégg naa ko micro mu ne Balla dama ko dóor mu jéblu si Balla dama dégg ko micro mu ne ko duma kuy jéblu bu ko xalaat te buñ a yëgaatee loolu ay stratégie yu nuy teg la nii rek mais kenn ku ci ne la nga war a indi wala nga de war def yaa nga ko denc yaa ngi ko denc sa ruq kenn ku ci ne ngay xool looy doxe sa maayanu morom rek pour réeral ko ak jaxase ay entraînement am mais mbër li mu lay bëgg la mu lay wax wala la mu lay def du taxaw si média di la ko wax mu du la ko wax maanaam daal la père Max di wax rek bu ñu la séentoo fetal nga fet bu ñu la séentoo fit nga fetal merci loolu mooy làmb waaw loolu mooy làmb mais li ñuy sànni xeer nii yëpp dañu koy def nii rek pour indil gomfale combat bi ak indi rythme bi ak sànni wante xeer ku ne di fàttaliku sa morom mais kenn ku ci ne la ngay def sa morom yaa ngi ko denc diggante Lac ak bu Eumeu Sène diggante Lac ak Eumeu Sène la boo xamante nit aussi combat bu neex lay doon hmm. parce que Euh, Eumeu Sène euh, mbër yi nga xamante ni daf leen di daan dañu dañ ko joxul cër hmm. mais Eumeu Sène mbër bu ko ci jox cër ah mën nga yàlla dogal mën na am nga daan ko. su ma la déggee loolu jox ko cër mooy. jox ko cër mooy nga ñëw nga xam ne ndaanaanu làmb la bëreeg moom ah def li nga man wane ne maa gën a nekk xale nga ñëw daan ko dem sa yoon mais boo ñëwee ne mag la moo ma jiitu si làmb bañ ko jox sa cër loolu mooy waral mbetteel si moom. kon ñi ko fi daan ñëpp dañu ko jox cër. Hmm. mais ku ko ci joxul cër da lay daan. kon Lac loo koy wax ci komba ba moom. Lac de li ma koy wax mooy que ne moom mu ñëw liir combat bi nekk ci combat bi wane fula wane fayda parce que nag euh, Lac de Guiers euh, bu xoolaatee ba Eumeu Sène daan ko leneen lay leneen lay niru. Hmm. parce que mënoo gën a nekk nit ki xale. ba pare ngeen ñëw ngeen bëre mag si ngeen bërewaat mu daan nga ñëwaat ba pare di combat bi di demee neneen lu dul daan dafa war a ñëw daan wane fula wane fayda. Hmm. parce que revanche moom heure boo koy jël yow yaa yow combat bi yëpp danger bi ci yow lay nekk yow yaay ñëw wane fula wane fayda. waaw kon daal lag loolu rek a ko war. loolu kese wane fu la wane fayda ñaw daan dem yoonam. Mhm. waaw am na solo euh, saison bi tënaa ubbi Gris 2 bërki dem jël naa ko moom jàpp na ne mbër yu mag yi ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo mhm. ah ñoom Gris Bordeaux magam ak ñeneen ñi mel ñoom Tapha ñoom Eumeu Sène dañoo seetaan parce que ñoom làmb may na leen lim leen war a may moom noonu la ko gisee donte ne ñoom ñu ngi sant mais dañoo war a wax pour ñu ubbi saison bi ndax ñoom ñu mën a bëri rawatina ñoom xale yi wax jooju noo ko noo ko gisee ak bu tëj bi waa ni ma ko gisee moom wax dëgg fa yàlla li mu wax noonu bëgg-bëggam ak sañ-sañam lay waxee rek mais wax dëgg yàlla affaire corona bi tax na ba nga xamante ni kenn amul droit ne nu ubbi lii wala ñu def lee nanu ñaan yàlla rek li nga xamante ni dañ ne moo nekk si réew mi yàlla suñu borom jëlee ko fi parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar réew yi nga bëri fii muy am ay guerre wala muy am kii ñi dañu aw fii ñee aw fee comme lii lan ne moo nekk suñu réew mi ñii na gëm ko ñii bañ ko gëm na leen ñaan yàlla rek ñu muñ ba lépp jóge fi ñu delluwaat ci suñuy activité làmb amul kenn doom amul kenn koo xamante nii tey làmb ji gisoo ci sa bopp wala mu am lu mu lay jariñ wala mu jariñ sa mbokk wala mu jariñ sa doom làmb ji ñëpp ko bëgg amul ku ko bañ waaw na leen ñaan yàlla rek feebar bi jóge fi ñu delluwaat ci leenu nekkoon waaw waaw euh, Modou Awa kontaan naa si yow maa ngi lay gën a kontaan si yow di rafetlu émission bi di gërëm promoteur yëpp di gërëm képp koo xamante ni yaa ngi bëgg làmb di dund làmb rawatina gox bi ma dëkk nii muy Grand CNG bu bees bi balaa ñuy kii fàtte woon naa ko loo leen di yóbbante. waaw CNG bu bees bi day ndax dañu ne nit bu fi nekkee di liggéey di liggéey ba yàlla dogal nga jële ko fa jël relève bi yaakaar naa ne boo ñëwee war nga mën a liggéey pilis li ñu leen di ñaanal nag mooy nanu daal jàmm di liggéey lu raw ñi ñi fi nekkoon lu raw li nu fi liggéeyoon ba li nga xamante ni moo nu metti woon wala moo daan naqari yàlla suñu borom oyofal leen yan bi ci seen ci suñu kaw daal mm-hmm. loolu la ñuy ñaan. léegi li may tàggatoo di gërëm doomi bawal yëpp di gërëm ñëpp di gërëm sama benn papa boo xam ne port la nekk muy père Seydou Diallo maa ngi koy sant di ko gërëm di gërëm Sakaria di gërëm Diarra di gërëm sama yaay ji nga xamante ni vraiment man chaque jour maa ngi ci këram waaw kenn xamewul ñi mu jur ak ñi mu jurul chaque jour man fii laay nekk sama lépp fii la parce que wax dëgg yàlla man man ak doomam ñoo nekk xarit ñu nekk poor mu nekk Badara moo nekk doom bu góor moom moo ko defaral fii sax wax dëgg yàlla di waa jëppal ñi nga xamante ni sama fan foofu la nekk xam Grand Dakar di waa Bentali Sénégal gi yëpp daal boo limbee da ngay juum waaw di wax nag Tapha Tine ñoo ngi ci sa kanam ñoo ci sa ginnaaw nga góor góorgóorlu combat bi yàlla sunu borom may la ci ndam di la gërëm yow Babacar ak équipe bi nga àndal yëpp vraiment di rafetlu émission bi di ci kontaan te ne amul dara lu ma ci metti Port ngay liggéey léegi. waaw Port laay nga wala. non. <laughs> wala nga foofu. daal maa ngi ci ginnaaw Père Seydou Diallo rek mu nekk ah. sama papa di ma jàppale. mais maa ngi ci gis sama bopp moom wax dëgg fa yàlla. Ah. doomu mbër yëpp la. këram Balla Gaye Sa Thiès ñoom sosin gaa yooyu yëpp fay nekk ah, moom doom mooy papaay mbër yëpp la papaay mbër yëpp la amul xaj ak seen kon de Seydou Diallo war nañ koo xam waaw ndax mu boole ñu amul benn problème nit ku ah. baax la wax dëgg yàlla nit ku ah, baax la waaw nit ku baax la dinaa leen booleeg moom vraiment ñëpp lay jàppale ñëpp waaw nit ku baax nañ ko ñaanal yàlla defal ko jàmm rek waaw kontaan nañ trop vraiment yàlla na ko yàlla defal jàmpeer Seydou Diallo ah papaay Moodu Awa papaay mbër comme ni mu ko waxee moom Moodu Awa di kontaan dégg ngeen Moodu Awa li mu wax ci jaar-jaaram loolu moo lay wan ne kon ah doomi mbër jàngil bëre yàgg yàgg na ma sa ñaam te loo bëgg doonub taalibe hélas da nga cay bëgg doonub sëriñ da nga cay nangoo nekkub taalibe maanaam bu jàng jotee nga jàng na bëre mën naa bëre te defe naa loolu Sénégal yëpp gis nañ ko macha allah am na lu wax mbër yi tamit am na lu wax ci diggante boo Niang ak Tapha Tine mais dañuy yónni yàgg rek di kontaan ci ñëpp di nuyu maire bi ah suñu yaay ji Eh, nu mu tuddata suñu yaay faat ki ne ñu ngi koy nuyu taal bi sëriñ Babacar si di nuyu tamit madame Sow borom boutique bi ci suuf moom di taal bi sëriñ Babacar di nuyu taal bi sëriñ Babacar si yëpp mais di nuyu Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax que ni Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm wax nag tey nag sama waaja Fallou Niang borom Maroc acteur film bu mag boobu taal bi suñ fàllu moom ma solal lii ci Jordan kon fàllu maa ngi lay bëggee di ñaan yàlla si jàmm yàlla na yàgg xulle di la kontaane yaa nekkoon ci wàllum film bi di bëgg ci yow di la ñaanal jàmm di nuyu waa Saloum di nuyu Elas Diouf numéro 11 c'est le meilleur man meilleur monteur kenn du Elas doomu Passy maa ngi koy bëggee moom tamit moo def montage yooyu ngeen di gis ba beneen yoon